di leen jaajëfalaat bu baax baax nag mbokk yi tey ñu mel ni ñëw ngi dellu siwaat fii tey ci résidence bi nga xamante ni dañ fi fekk jëmm ju baax ji lee di sëriñ Fallou euh, Kéman ñi di ko santaat bu baax a baax ci tabarkal la euh, boo leen xoolee waxtu wi xam na euh, guddi na lool guddi na lool ndax li ko war li tam am yitte yoo xam ne war nañ ko fa yéene waxtaanee ginnaaw itam ba mu demee tukki nemmeeku bay delloosi ci du Dubaay ñu du ko santaat bu baax a baax ak ngërëm ak cant goo xam ne dañ ko koy delloolaat waaye itam waxoon naa leen ni eh, ginnaaw si ndakaaru fii nag moom ngi ci diwaanu golf li ko waral nii gisoon nañ fi jamono yi combat eh, Balla Gaye Boy Niang giseen ko fii ci jamono jooje itam moom ay kaddu yoo xam ne yëkkati war na ko waaye nag mu mel ni tey diggante eh, Sa Thiès ak ki nga xam ne rëg-rëg dinañ ci waxtaan ci kanam tuuti waaye balaa ñu ciy sori tey nag xam ngeen nii ni ma leen ko waxee boo leen xoolee xam ni waxtu bi guddi na Serigne Fallou Kémane tabarkàlla di loxo asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Mouhamadul xaa ñu ngi lay fay nuyoo di nuyu waa jàmm ji info yëpp ak personnel bi nga àndal yëpp euh, di yemale foofu suñu kàddu rek ba ba micro bi ñëwaat bismillah mbokk yi ñu bari ñoo ngi yàkkamti nag xam naa ne tey bu ñu waxee golf nga nekk tey ci résistance bi ndax li la waral mooy euh, amoon ngi fi ay liggéey ya ngi fi doon def ay jamono waaye tamit gox gi kii itam jox la bopp xamal ni da nga fi war a toog waaye tawul ba léegi yaa ngi génni di def ca diggante euh, daanaka yenn réew rawatina yaa ngi jógee ci diwaan Dubaay lan moo la yóbboon Dubaay sëriñ bi. waaw xam nga euh, ñaan moom boo koy def adduna bi yëpp fépp lan lay soxla fu ñu demagut it ñu ngi koy waaj ndax. àdduna bi fépp lañ ñuy woo képp ku ñuy woo wala nga ñuy yóbbu ci barab rek lañ ñuy doyee mooy ñaan ndax bañ juddoo ba tey ci loolu lañ nekk man ko man gu doy war maîtriser ko képp koo xam ne yàlla dogal na nga woonu nu déggoo rek incha allah sa aji dana fayu ak lu mën a doon nag moom waa kay sëriñ bi ñu bëri itam euh, daanaka am loo xam ne dañ la ko xamee euh, ñu ci bëri bari itam am benn anam goo xamante ni ndax bi ñuy wax xeetu seet euh, sëriñ Fallou Kéemaan ñu bari dañ la sax xaw a ragal maanaam da ngay wax nit ki ba jàpp ni dafa am ko fanaan ak moom wala yow sax dangaa ngaa moom mu nekk loo xam ne lu doy waar la xeetu seet boo gën a dem ci jamono nga ne yow waxtu wu nekk ak fu ñu la fekk war nga faa mën a seetee ak fu ñu la mënta fekk am na ñoo xam ne nag boo leen fekkee ci bërëb dañ naan la tànk fekk si woo ma la mën a xoolal waaye yow da nga ne fu ñu la mën a bettee rek foo mënta toog mën ngaa seetal nit ki loolu ban genre seet moom anam yu lañ ci seetee dañ ko man man goo xam ne moom daa jéggi dayoo bu ñu seetal nit ñun liñ jàkkaar loolu day mel ni télé mm-hmm. boo ko defee kii jàkkaarloog man di ma déggit nañ ma bañ a sonal ci wax ji mm-hmm. képp koo xam ne euh, da nga bëgg a jëflanteeg man la ñuy jiital mooy seet waaw képp koo xam ne bëgg nga jëflanteeg man dañ lay defal danga may woo ñu defal la consultation man du jox garab kenn te seetalu ba la waaw léegi seet moom yaatu na yaatu goo xam ne euh, buñ ko toppee daanaka mën na jël émission bi waaye képp koo xam ne am nga loola jaaxal lu mën a doon moo xam ci sa yaram moo xam ci sa liggéey boo ñu wooyee bu soob yàlla lépp dana leer naa ñi incha allah. sëñ Fallou mu mel ni foofu tamit bunt boobu duma la bàyyi toog naa dégg am ku la woo nan la ndax ma jox la sama sama tur ak sama sant amaana wala sama tur wayjur dafa mel ni am nga loo ko wax ci biir wala tamit bëgg laa expliquer nga ne ko jaru nga may wax dara ndax lépp dina génni loolu bëritul ñu koy wax de. toujours nit di ma woo di bëgg a wax di bëgg a leeral nit ki boo ko leeralee sa sa soxla kay jëru mu lay seetal man saa bu ma nit woowee ne ma nàngam ak nàngam dama ko bàyyil bañ seet ba pare. Mm. bu ñu seetee ba pare bu soob yàlla lépp dana génn te lépp dana leer incha allah mbokk yi muy sëñ Fallou Kéemaan tabarkal la nee naa leen nag mu ngi fii ci golf sud boo la ba ci terrain bi euh, daanaka yéen a ngi ci diwaan fii ci diwaanu Ndakaaru nag waaye léeg-léeg itam ne ma leen ko waxee yenn saa itam day def ay tukki nemmeeku di génni waaye jamono ji ñuy wax ak yéen ñu ngi fii euh, daanaka am ay liggéey yoo xam ne mu ngi koy jëflante gaskan wi euh, mbokk yi nag di leen fàttali rek numéro téléphone bi la loolu mooy numéro bi nga xam ni képp ku ci woote appel normal ko jot waaye itam ci appel WhatsApp léeg nag bu sëriñ bi jàppee itam mën ngeen ko bàyyil vocal whatsapp dina leen tontu sëñ Fallou ñu ñëw ci euh, feebar yi nga xam ne day dal doomu aadama yi ndax foofu laay njëkkee mu nekk loo xam ne am na ñoo xam ne dañuy dem hôpital euh, daanaka ci pajub tubaab bi xool nañ ba sonn waaye bu ñu leen xoolalee duñ ko gis machine bi du ko gis waaye ñoom giir na leen ñoom am na lu ñuy yëg seen yaram sëñ Fallou ndax loolu parfois ci doomu aadama bi dañ naan ko dara dalu la wala gisuñu dara mais leer na ko moom mii toog am na lu ko dal euh, genre xeetu feebar yooyu naka leen ko lañ ko mën a daanaan ci wolof ndax loolu wolof carrément war na ci mën dara. jërëjëf Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, euh, yàlla dafa dogal garab wolof moom lim man lenn mënu ko loolu la yàlla dogal garab wolof boo ko xamee dëgg dëgg dëgg bépp feebar bu mën a doon man bu ma composé samay garab. jox la ko ñetti fan nga jëfandikoo ko da ngay am résultat te am na feebar yoo xam ne hôpital mënu koo gis am na ñoo xam ne dañuy def rajo def analise mm-hmm. waaye li leen dal duñ ci gis dara man am naa saafara boo xam ne euh, ci secret bàyyi Niass la bàyyi ko lépp lu la mën a dal ci àdduna boo la ko bindalee wax la niñ koy jëfandikoo nga jëfandikoo ko juróom-ñeenti fan mm-hmm. lépp lu nekk ci sa yaram day dañ ak lu mën a doon te loola li ci saafara bi man docteur du ko gis mm-hmm. waaw lépp loo xam ne euh, tawat la ci nit rek bu ko jëfandikoo bu soobee yàlla day daal di wér man ku ne laa ci faj ma ci faj ba faj ci koo xam ne day jàppoon na ne du jóg waaw te alxuraan moom huwa sifa min kulli daa alxuraan mm-hmm. naa saafara lépp waaw mbokk yi de ngeen ko ni mu ko waxee ci wàllu ñi nga xamante ni parfois da koy dégg ñu ne la bu waxtu wi jotee rek sëñ Fall da nga am ñoo xam dañ naan la bu daanaka timis bi di waaj a dugg sama yaram dootu ma mën dara dafay mel ne dañuy activer loo xam ne sama yaram daal maanaam dañ sama yaram yëngu gi muy yëngu moom amaana doy na waar foog mu dem ba ci kanam a kanam guddi gi xaw a sedd tuuti mu xawaat sedd lan mooy waral loolu. loolu nag li ci ëpp ci li koy waral xeetu def-def lay lay doon am na ñoo xam ne fi mu nii bu naaj wi tàngee seen yaram day tàng jëpp mm-hmm. am na ñoo xam ne guddi lañ leen di jàpp waaye bépp def-def bu mën a doon man li may liggéey boole kook sungu su xay boo ko sangoo ñaari fan ñett lépp lu nekk ci yaram day dañ loolu moom loolu moom kenn mënu ci dara te képp ku la ku la defoon dara day këpp ci kawam waaw li ma ciy liggéey moom day fayu ñaari kuñ sa kuñ sonal di la xeex xeex yu metti rek laa koy jox waaye du ku ñëw rek ma jox la ko loolu ndax dama ko ragal waaw day fayu fayu yu metti mbokk yi euh, euh, li may wax saa su ne nañ koy bàyyi xel du ku ñu gis rek laal du ku ñu gis rek jege euh, dégg ngeen ni ko sëriñ Fallou Kéemaan waxee la muy lu am solo lu jar a bàyyi xel bu baax a baax sëñ Fallou ñu ñëw ci wàllu nopp nopp ñu bari dañuy wax ni doo ci waxaale daanaka yow sa bopp nopp say nopp moom amul rate loolu sañ-sañ la wala lu mu doon. kooku dama ci jàng yu yéeme yu wuute yu bari yoo xam ne yépp a wér waaw man lépp lu may jàng. wala ma wala ma koy jëfandikoo lu efficace lay doon lu wér lay doon mm-hmm. képp koo xam ne da ngay bëgganteeg nit ñu taxaw ne duñ la ko may mm-hmm. buñ déggoo dañ la koy may force moo xam ki nga bëgg a noob mm-hmm. nit ku ñuul la moo xam nit ku weex la buñ defee li ñuy def dañ la topp ni xaj ji toppee boroom insha allahu rabbi jërëjëf sëñ Fallou Kéemaan euh, yaakaar naa ne du ma ci soreeti euh, li ma wax ci nopp moom nee na daanaka sax booy ñëw danaan loolu dootuma ci wax ndax ñi ma xam nañ ma ci bu baax a a baax a baax a baax sëñ bi ñu ñëw ci wàllu euh, li nga xamante rek moo di kaaraange ak ubbeeku comme wax nga ko sànq am nga kaaraange goo tudd waaye ubbeeku la plupart ñu ci bëri bëri bu ñu jógee dañuy wax ubbeeku rek la ñuy wax mais kaaraange bi parfois ñu fàtte ko ndax yow su ubbeeku tamit loolu yaa ngi ko ciy sóoraale ndax askan wi danga gis koo xam day nekk ci yoon ba mu yàgg dem ba tim li ñuy bëgg a ñu fàqatal ko doomu aadama yi balaa daray xew na wut kaaraange ba pare ndax am na yoo xam ne fii nii boo ko ñaanee ba mu ñëw it te amoo kaaraange du toog waaye man maa ngi defal benn kaaraange boo xam ne ci juróom-ñaari miskit lañu koy bind nga lekk ko juróom-ñaari lekkin ñu liggéeyal la ko juróom-ñaari fan euh, juróom-ñaari lekkin yooyu juróom-ñaari rawaan la rawaan bu ne mi ngi lay garde noo mën a def nit ki moom faw mu toog wala mu tëdd euh, ndeyjoor wala mu tëdd defeenu wala mu tëdd jaaxaan mm-hmm. te noo ci def rek rawaan mi ngi lay garde képp koo xam ne jëm na ci yow lu bon rek mm-hmm. rawaan bi da koy mu faatu kooku Mali laa ko jàngee mm-hmm. bambara bi ma ko jàngal fas la ci daan laaj waaye képp koo xam ne yàlla dogal na ñu liggéey la ko képp ku jëm ci yow day faatu eh. kooku kenn mënu ci dara insha allah mbokk yi dégg ngeen ko sëñ Fallou li mu waxoon tam njëkkoon na wax tuuti ci kaaraange fii léegi waaye itam dégg ngeen lu mu wax ci ubbeeku waaye neen nañu jiital li nga xam ne moo di kaaraange comme ni mu ko waxee euh, bi tey waxtu bi nee naa la guddi na combat bi nga xam ne ki doxoon ki diggante ki nga xamante ni moo di Sa te bu ñu waxee Sa euh, Thiès wax golf wax géejewaay daanaka yaa ngi fii ci keppaaram daanaka sori woo ko ni ma la waxoon li la fi indi woon mooy liggéey waa am solo nga xam ne def na ko ñu jox la bopp ñu ne doodoo fi génni Sa Thiès mu nekkoon combat boo xam ni combat de choc combat de tension mu nekkoon combat bu doy waar combat bi geex na waaye ci biir nee nañu kat làmb moom mënul am ñaari jël saa ñu ne bu njëkk bi ñoom jàpp nañu seen camp dafa def euh, euh, Reug Reug def na kat app waaye dem nañ ba ci biir ci ñaareelu sëgg bi euh, Reug Reug daan ko waaye arbitre ne joxe na waaye ñoom li ñu jàpp ba léegi nii saa ñoom côté golf géej waaye ñoom dañoo am ndam sëriñ bi mu mel ni tey li waral waxtu bi heure bi ma woola nga nangul ma sax daanaka yaa ngi soog ubbi léegi noo gisee li mel ndax ci bëccëg. am nga lu ma jotoon junj waaye xawoon ngaa jàpp sax ginnaaw si loolu tax ñu ñëw. jaajëf Cheikh Mouhamadul taxa komba bi xool naa ko ay yoon yoon léeg-léeg mu jëm fii léeg-léeg mu jëm fii waaye lu yàlla dogal ab jaam da koy nangu combat bi tey jii bi ma ko xoolee mi ngi ci loxo sa saa loolu la yàlla dogal bu ñu bëggee lu rafet bëgg lu lu lu moo ko moom buñ ko ko joxut it moom xañ nañ ko lu lu moom waaye moom ndam li moom moo ko moom loolu moom rëg-rëg mi mu doon bëril sax xam na ko waaw mi mi mu doon bëril ak estafu rëg-rëg yépp xam nañ ne sa saa kees moom moom ndam li lu yàlla def nag boo ko boo ko nanguwul wala wala wala accordé woo ko da ngay da da def lu ñaaw loo xam ne day indi ay coow indi ay polémique te du ko jar sëriñ bi balaa maa dellu nag ndax dafa mel ni deret dafa foor tey gis nañ ki nga xamante ni rek moo di mag ji muy Balla Gaye Balla Gaye 2 euh, tamit moom ci boppam deret dafa foor lool dem na jamono joo xamante ni mu nekk loo xam ne lu yéeme la euh, ba tax na amaana rek euh, damay ñëw tuuti foofu ci côté boobu mu mel ni deret foor na lool dem na ba jàpp ne rek amaana deuxième géll bi am na. waaye arbitre ba mu tasee rek jox ni kay victoire dafa yëkkati loxo saa gis ndax deret. jërëjëf moom moomu sax. yàlla dogal na am na ay jamono sama nit ku dëkk Touba woo ma weexal ma dama ñaanalal Balla te kooku xamantiwut ak Balla te Balla moom man xam naa ne bu fekkee ne mi ngi nekk en normal du taxaw ak benn mbër dafa am lu nekk ci moom loo xam ne euh, bu yàlla dogalee nu gisee bu soobee yàlla dana beesaat teq ba mel na meloon. sëriñ bi su ma déggee dafa mel ni da nga bëgg ne loolu garanti nga ko bëgg a def parce que nga ne boo gisee Balla Gaye moment bi nga ne mën nga ko delluwaat fi mu nekkoon à cent pour cent. dana may gis ma koy gis waaye bu yàlla dogalee mu ñëw ba tàbbi ci samay loxo hmm. bu soobee dana beesaat teq ba ba mel na meloon ndax xam naa ne am na gàllankoor bu nekk ci moom waaw Balla euh, li nekk ci moom. Hmm. bu fekkee ne mi ngi nekk ci moom du taxaw ak benn mbër waaye am na am na lu xew daal waaw te bu yàlla dogalee ñu toog hmm. dinaa ko ci leeral lu bari insha allah mbokk yéen a ko dégg muy Serigne Fallou Kéemaan wax naa leen itam ni ma ko waxee guddi na lool waaye itam mu euh, jagleel li ñu mel daanaka ñuy jéggul sax si sa waxtu wi nga xam ne jël nañ ko euh, euh, baa ngi noonu ci baaru écran bi yéen ñi ko yittewoo mën ngeen jël numéro bi am na appel normal waaye itam am na whatsapp bu sëriñ bi bu leen ko woo itam jotu leen ko rek ngeen bàyyi mayal ko WhatsApp dafa euh, jàpp sëriñ bu mel ni daanaka waxtu bi moo ngi kete lool euh, ñu ñëw ci ki nga xamante rek moo di euh, ñu ñëw ci wàllu ngóora tawat boobu nag sëriñ bi nekk na loo xam ne mu ngi gën a yéeme nga ci liggéey lu efficace cee def lu doy sëriñ bi lan la njàng la ndono la wala lu mu doon ci garab yi ngay joxe wàllu ngóora njàng la ndono la waaye nit ñi nañ ma bañ a woo ci wàllu ngóora rek ne dañoo soxla garab yi hmm. parce néew kàttan yi koy waral dafa bari hmm. képp koo xam ne néew nga kàttan bon wooyee faaw dañ koy xool ndax rab dana waral néew kàttan hmm. hémorroïde dana waral néew kàttan hmm. siti dana waral néew kàttan waaye tëleet liggéey mën na ko waral ànd ak soxna sa jàmbarit mën na ko waral nit mën na dem ba am ba ba màndiyoom wàññi wàññi ko ko defee mën na ko yóbbee néew kàttan waaye nu nit mën a néewee kàttan bu nu wooyee buñ ko xoolee ba pare danañ xam garab yi muy jël te bu soobee yàlla bu fekkee ne da daan gaaw a daanu dootu gaaw a daanu bu fekkee ne benn yoon la daan sëy bu ko neexee mën na sëy ñaari yoon du am benn jafe-jafe incha allah. sëriñ bi yaakaar naa loolu kenn du ci teg dara dégg ngeen ci ngóor ni mu ko waxee mu nee naa nag mu nekk loo xamante ni sur commande mënu ci am lu doy ñuy santal sëriñ bi bu baax a baax xanaa kaddu gi rek ci benn simili sax soo ko mënee may xam naa dinañ amaat sax jotaay gën cee yaatal Ousmane Sonko Euh, ci euh, tribunal ba nga xam ne war na wuy jiwaat ci mbiru euh, ki nga xamante rek moo di Mame Mbaye Niang le 16 mars noo gisee taxawaay boobu procès boobu ba léegi. Mame Mbaye na tey bu baax rek ndax daa sóoru koo xam ne moom mm, daan ko yombul te gone moom bu bu bu bu sóoroo mag bu téyul rek mën na mën na ko jural yu bari ndax Seydina Ousmane mu sell bi da dafa am lu yàlla def ci moom. waaw yàlla nag am na loo xam ne bu ko defee ci nit boo téyul rek eh, di ko jéem a eh, jublu rek sa tànk mën na damm waaw bu téyul daal moom màmbay loolu mën na ko fekk ci dossier bi ndax ki muy jëflanteel bokkunu nit moom boo xamul na ko ndeyam bootee dafa nga danga wartee ci moom Ousmane moom waxuma la màmbay waaye Macky sax na war na koo moytu ndax boo ko moytuwul mën na ko indil jafe-jafe waaw na gën a tey ci moom daal waaw ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ñaan sa borom defal nu faju aajo saahir ak baatin barki sëñ Tuubaa mbokk yi ñu bég lool yaakaar naa guddi na lool wax waxaat du bëri wax waaye tam waxtu bi mu ñu may xam ngeen jamono yi itam day soogu ubbi rek a tax waaye tamit euh, actualité bu ñu ko soxlaa tamit jugee nag ci tippique tukkeeg nemmee ko ci diwaanu euh, Dubaay ñu di ko santaat bu baax a baax tabarkàlla euh, di la ziar bu baax sëriñ bi waaye tam di bég lool ki nag temps bi ñu may xam ne ñi temps dafa cher itam ci waxtu bi yaa ngi nekk ci liggéey ci kurus bi ñu di la baax di leen fàtte nag sëriñ Fallou Kéemaan la woon yaakaar naa dootu ñu leen ko présenté di borom xam-xam tabarkàlla fii ci diwaanu golf léeg-léeg itam bu lay dal fii ci résidence am euh, ci terrain golf sud bi boo fi yegsee numéro téléphone baa ngi noonu ci baaru écran bi 77 la. 274 29 48 nee naa leen nag euh, numéro appel normal la waaye tam am na appel euh, whatsapp euh, yéen ñi nga xamante rek bu leen ko koy jotu jotoo leen ko mën ngeen ko bàyyil vocal whatsapp bu ci noppee dina leen tontu mbokk ñu di leen santaat bu baax a baax di leen gërëm ci wàllu présentation bi seen bokku taalibi la Mouhamadou Lamine Muntaxa di leen jox dig dig daje ba beneen yoon yàlla mi borom jàmm te it ku mu jàmmal nga daal di am jàmm yàlla na yàlla sa borom bi doo li ñuy defal jàmm di leen asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu